defe naa ne les chic daal de la. bu dee dëgg rek bëgg dégg bëgg nañ la te estimé nañ la. waaw te franchement ñoom itamit euh, elle veut des cœurs daal. jëkkër bu baax ak jëkkër bu baax njool ca kaw. li nga ko wax benn rëy na noonu. waaw jëkkër bu baax. njool ca kaw pour Ndella Madior. njool ca kaw précisément ah béykat yoo xam su dañ njool ca kaw. maa la wax lii. rafet set wecc. ayca set wecc. bu ñu waxee euh, ci Daba Boye waa Daba Boye moom démb de mi ngi fi woon. dama bi nga toj dëkk bi de moom it. waaw ndeysaan lu muy wax. waaw dama maa ko formé sama produit. waaw euh, bu ñu xoolee bu baax tamit ci ay waxam ci interview yi nga xam te ne mi ngi koy am tamit ku ñàkk ki ñaan la ndax fu mu toog dafa naan sama sama boy la. Mhm. daba boy sama daba boy la fii lay nekk ba une heure du matin ma ko coaché ko. Mhm. dama ko yàgg a formé nag durant dix ans. lépp lu mu wax maa nekk si derrière. Hmm? dafa dem ba jàng wax beeg tout doo tàbbi sa maa nekk derrière. Hmm. maa ko ne soo demee ba tàng doo la tàbbi yow yaa ngi wax soo demee da nga diggee doo tàbbi su neexee nga toj kaasi. waaw. soo fu. mais ñi ne lañ dafa booy mën na ñi ne lañ dafa booy. ah mën na seet seet lañ lay def ah, ma gisaane bu mënul hmm? ku ma jubal ñàkk jubal ñoom ñëpp mun seet. waaw hmm. ma testé dëgg dëgg dëgg mooy wax sama rajo bi waaw hmm. ah, ñoom ñëpp mun seet. mais ñoom ñëpp mënuñoo fekk. faj da def sa médecine wala nga donn ko say maam pour la médecine traditionnelle. faj ak ak seet du ah, benn ak seet du benn dañoo mun seet mais munuñoo faj. Mhm. faj bi médecin yi la. chaque jour ma wax leen ko. Mhm. dañoo mun seet mais munuñu faj. Mhm. am na nag ñoo xam ne mun nañu faj mun seet. am ñoo xam ne fekk rek la ñuy def munuñoo seet. dëgg la. waaw mais nag doo doo doo gis xaalis am na si fekk bi xam nga xaalis wextaal moo nekk si fekk bi. doo nee xaalis bu nekk si fekk bi nga jël photo am na ko doon ne de 15 jours dinaa ko tudd turam waruma fàtte turam te pourtant maa ngi fàtte tur bi ku ma gëj a gis fàtte tur bi. moom day faral di ne. bi mu bari. ku ne ku ma gëj a gis fàtte naa tur bi donc moom délai 15 jours lay wax jël photo papier di photocopier di joxe mais tôt ou tard da ngay feeñ. Hmm. seet kat de rek loo fekk. seet rek ngay def may loo fekk vraiment fàtte naa tur bi waay. comment il s'appelle encore oublie son nom amul solo. ayca xëy na si biir émission bi dina ñëw quoi. waaw ayca si biir émission bi dina ñëw. Ndella ñu gis ne tamit euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Saka ma copine. Hmm. voilà hmm. man ak moom xam nga ñoo ñoo ñoo jàngatoo. sama doom nga ndeysaan. ba oui pour seen mari daal. sama doom nga. waaw ndeysaan. <laughs> ndeysaan. ayca eh, ba dafa dugg marché. <laughs> Uh-huh. loolu moom elle adore euh, aller au marché faire les courses xam nga moom dafa fashion. Mm-hmm. oui elle adore faire les courses. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla may jëkkër ba mu xaalis daa koy ñaanal tout le temps parce que bu pëpp day day comme ça day dépenser rek. Ah. <laughs> yàlla mooy gérer léegi maajoor maam ji lay gérer jëkkër ji lay gérer xam nga maajoor mooy. mooy xam waaw moom mooy gérer maajoor. Mhm. Ah. ñu gis ne que nag moom tamit euh, dafa mel ni say dafa mel ni sa sa tànk soo gisee tamit comment elle parle. li muy dégagé mën nga ah, ni. personnalité voilà da nga naan Ndella Madior la. elle a une forte personnalité. Mhm. da nga bëgg def Sarah mu nekk Ndella Madior tout. non non non elle est Iwouloula c'est une forte tête. Mhm. on la force pas elle elle fait ce qu'elle a envie de faire. Mhm. je pense qu'elle va faire des émissions télé. elle veut faire également des des beaucoup de commerce. voilà donc nee naa ko na lancé ay supermarchés communs les supermarchés communaux. dafay contenir quoi parce qu'elle aime bien le commerce elle aime bien. Euh, euh, la télé également. mais elle est beaucoup plus commerciale. waaw donc na elle peut lancer des des kii vendre des produits américains. Mhm. lancer des supermarchés. waaw loolu de laa orienté et je pense que loolu intéressé na ko. Mhm. voilà le fait mu amoon fi coow euh, temps yi repassé. Mhm. nekk loo xamante ne regretté nga ko ci. non je suis ah oui ah oui ku am ko du lakk ñëpp bëgg nañu dóor boo yaay boo xam ne ku tooñ seen yaay nga man de moom moom moom je suis fière d'elle. ah oui. il y avait une voyante, bon, ramener la fête que c'est radio, elle buvait, elle prenait de drogue. On a dit stop à, à la voyante, stop quoi. Mm-hmm. ne veut plus de toi. Mm-hmm. Et puis moi, il déconne, Sarah n'a pas hésité à la frapper. mm problème. Que toi, il y a un autre dos. Il faut Man ko ci torma ak baajo diouf bi. Ce que là lay fekk dul. Et na ngay sey. Képp ku la sama papa ma diouf. Tu te fais kon moom tamit ku laal maaj jëm kii Ndella Madior elle te fait la fête man ku laal Madior je te fais mais lan mooy problème bi. Madior si boppam nga xam ne benn joxuñu ko àkkam di chaque jour ma xas leen delloowuñu ko ministère Madior a laissé son ministère par amitié au profit de Moustapha Niass Moustapha Niass bu mu duggee delloo ko ministère par amitié c'est le seul dans le monde qui le fait dàq nañu Moustapha Niass mu ne ah kon mënatul toog si gouvernement bi. kookoy Maajob kooku soo amaatee ministère da nga koy delloo te delloowuñu ko ko ñu taxaw di ko seetaan lu tax xëy dañ ko teg bët Boursine loolu mooy Boursine moom tamit waaw uh-huh. <laughs> gis nga ne ma défendre sama papa dëgg la ak ah, kutu voilà <laughs> kon Sara dafa mën a def défendre défendre défendre yaayam moo ko war moom daal ku tooñ yaayam mu défendre dóoral saf bu mu dagg bopp bi rek mais lan mooy problème bi entre moom moom ak moom ak yaay sax wax naa la ko léegi kooku dafa doon naan. di mandi d'accord ñu muy naan di mandi di doog ñëpp teg si bët kii teg si bët ñëpp teg si bët ñu ne ko dootoo dugg si rajo bi loolu rek mooy problème bi du ay bon yu ñu bañ a fay ak loolu c'est des journalistes qui c'est des ñiy tagg anglais yi nekk ñiy yàqkat rek ñu doon wax loolu non on veut plus d'elle on euh, rajo bi débranché rajo bi pour rajo bi nga tàkk ma fekku rek parce que boobu wàccu ma mhm. voilà rek la woon Sara ah, moo ñëw fegal mère bi mère yaayu. yow sax di ko demandé nag su ko séenee sa naka def loolu. ah kon ma bi jeexu. jeexu teexu njaago du jeex. Ah. a <laughs> wax naa leen ko. Hmm? loolu rek la kon du problème daal. non non fayal la ko jot naa ko woo sax. naa ko personnellement pour xam ban état mental la nekk. Mm-hmm. ce que décroché na après ah, bien sûr on a discuté une heure de temps. on a discuté durant une heure de temps ba mu bëgg a dellu si mais après. non non non xam nga lan la ma tontu. Hmm. da ngaa génne dawam da ngaa génne doom fat doom. danga nga dàq doom. fat doom fat doom moo tax mu dekkoon ne wax lii muy wax yëpp loolu rek la wax. gis nga loolu. ayca kon ko tëj ndax defe naa ne. amul problème voilà amul foofu amul problème. loolu léegi dama booy doom la. ah y a des y Daba Boy mais Daba booy dama ko Daba Boy dama ko forger dama ko forger Daba Boy voilà y a tout ce qu'il y a dans Ndella Madior de de de de de bombe là. waaw day xët xët parce que dam ko ko dama ko ko wax ni nga koy defee. dama ko ko roof. c'est mon produit <laughs> niveau bi rek moo tuuti niveau bi. Ah. mais jàngam su sori woon dëgg mu toj àddina. elle est très intelligente. Mhm. mais jàngul jàngu sori su jàngul jàngu sori. parce que dafa mën politique dafa mën wax donc su fekkoon jàngam sori na. te na seet kenn antalu ko mën na seet waaw mën na seet mën na dalal nit te mën na wax wax bu rafet. Mhm. kon mën na yàq tamit daba boy daal dama boy la. mën na yàq daba daal daal daal mooy tey dafa waroon ñoo animé. kenn gisu ko. gis nga daba xaar bu guddi. mu ne sama tànk moo doon nekk. madame Boursine la may woy Boursine buggoon naa ñëw de waaye sama tànk di métti. suba dinaa ñëw. Euh. dégg nga wax ji parce que il faut qu'on le qu'on l'encadre. le problème que j'ai eu avec Daba Boy c'est la même chose avec Patra. Mm-hmm. ay sama doom la maa ko formé. na ne ma ah xam nga loolu. yëpp moo leen ah fii la dëkk su ñuy rey tabaski mooy taxaw téye tak euh, rey xar bi mu téye mu ñu rey xar bi fii la dëkkoon maa defar bu mu demee viré moom tamit euh, si alcool bi mm-hmm. parce que gisatu ma amatul woon ku ko encadré. mais pourtant bëgg nañ Patra lu tax. Nicolas Lakaw indiwaatul dina am Patra dina am yéene bi ab day réer xanaa dem téye si loxo bi su ma neexoon léegi ma dem téye si loxo bi dugal ko studio mu animé day animé. ah c'est mon produit. Ndeye Astou Gueye. Ndeye Astou Gueye xam nga Ndeye Astou Gueye. Sen TV fële euh, euh, Walf TV. kan moo ko dugal ci communication. 98 dinaa ko testé téléphoniquement de voix moo doon présenté journal l'an ñoom ñëpp samay doom lañ. mais ñu ngi formé ay naanaan lañ. Carl Rogers. PNG. xanaa PNG ñooy xale bu ndaw yi. ñooy ñooy cuuti PNG ñooy ñooy cuuti. Sida. bii baax xale yi fii mi jaar. ñu fi jaaxal lu ndax nee la. xale yëpp fii la ñuy jaar. Mhm. même Pape Cheikh Diallo bii. Mhm. sama doom la. dégg na te posé woon na si man mais man gisuma koon xam nga demande dañuy bëri. déposé woon na ah, emploi ah, loolu moo ko soxla un jour. ah ouais <laughs> déposé woon na emploi maintenant et loolu yàgg na mais après gisuma ko mais man rek la fan xaw nañoo. mais euh, seen problème bi rek la woon. ban léegi man lan mooy bi. Ah, problème bi problème bi moo nekkoon euh, euh, Pacha ne Ndella dafa bëggoon ñu invité ko mujj ñu ko invité Ndella mer li de ko ne. man ñoroon naa la kii sa dafa man duma sax dafa invitation mais damay waxtaan ak ñoom. musuma woo Pape Cheikh Diallo chaque jour mais dinaa ko dafa rappel pour mu bañ a rappel dafay baax. da ngay rappeler waaw dinaa ko envoyé texte félicité en pleine émission. tudd sama tur de la d'ailleurs mi ngi seetaan ma may ko sama doom muy moom fu mu ne Pape Cheikh Diallo dafa da nga kon Pape Cheikh mooy Pape Moïse. Moïse laa ko may si communication pour mu ko si bëgg bay loxo. ndeysaan. léegi nag gars yi journaliste yi si fin bi ñoo ñëw xayamal ko këpp si suuf. ay jaxase la dañuy jaxase mhm. dañuy ëf ATFM la ñuy jaxase ak si réseaux sociaux yi mais man amee lu ma ko dara sama sama sama doom la sama kii il a un bon mhm. dañ ko coaché pour nekk affaire beneen naka ñooy kan ba kenn du ne quarantaine TFM ñooy ñan xanaa du Macky Sall si boppam quarantaine na boppam man je suis médecin gisuma ku ma ragal si àddina TFM ak Youssou Ndour ñooy ñan kenn du ne quarantaine mooy ñan su ñu amee coronavirus danañ ci quarantaine est que du wax bi moo xawoon moo xawoon bees si bopp nit yi wii kenn du leen laal wu quarantaine Macky Sall quarantaine na boppam alors. léegi maintenant la pilule est est est bonne à avaler. Mm-hmm. mais ku ko wax ñu ne oui mais yow téléphone yooyu ña xanaa du maa leen njëkk a installé rajo bi ngi Sport FM boobu maa ngi sant FM di. Mm-hmm. ñoo mujjee ñëw xam nga gars yi ñoom ñëpp dañu sama complexe parce que ñoom ñëpp muy Mamadou Ibra Kane muy Alassane Samba Diop. bi ñuy raam. Mhm. bi ñuy raam Walfadjri boobu maa ngi sama maa ngi patron de presse vingt ans après la ñu doog a nekk patron de presse c'est la pilule qui est dure à avaler ñëw mujjee ñu. <laughs> bi ñu nekk man ba ngay nekk patron de presse. Mhm. boobu ngi nekk reporter simple journaliste di gedd Walfadjri boobu maa ngi patron de presse de ma seen morom. moo tax chaque jour ma ne yéen ñëpp du ma seen morom te muy dëgg. yow daal foo génnee gën leen. du ma seen morom ñoom bi ñuy raam di jàng boobu j'étais patron de presse xam nga li ma dul pardonné li ma nekk médecin te ñu xam ne médecin la ñëw nag am samay réseau nag fu ma ne nii installé samay pylône ne nongu sama kaw terrasse nag gars yi ne pourtant caaxaanu li lii na mu doon ma ne antenne lay installé te du n'importe quelle antenne 37 mètres 50 mètres biir ñëw 50 mètres laa leen may wala 100 mètres. ku gën a guddale rek. yow daal na gudd rek. ku gën a guddale pylône te na gudd. maa la wax gàtt sax yow daal na gudd. damay tëj émission bi damay tëj émission bi bii daal waaye nag may may <laughs> nee daal neen na gudd yàlla baax na léegi bu ko defee daf may wax nee la.